asalaamaaleykum suma gars this is another time another Korka Street Talk tey nag ñu ngi fii si Mandiaye soo gisee trafic bi nu mu jaamee nañ dugg si town bi ñu xool lan la ñoo am tey nag ndax nit yi du daw ku ñu daw rek dinañ ko téye tab Korka Street Talk la xoolal let's roll it. hello salaamaaleykum. what's your name. my name is Korka. your name is Korka. yes. Chaku Bantang. and Mac and and uh, uh Farafenye, which one is far from Serekunda? Actually, I don't know because I know Farafenye, but I don't know Chakubanta. This is my first day of hearing Chakubanta. You know Farafenye, but you don't know Chakubanta. I do know Farafenye. Okay. Do you know Denton Bridge? <sighs> Denton Bridge, yeah. Denton Bridge is at Serekunda or is at Banjul? It's at Banjul. Ah. Yeah. Okay. Is Banjul an island or not? Banjul is an island. What makes Banjul an island? Because it's surrounded by water. Why? Water. Are you sure? Yeah. Who's mayor of Banjul? The mayor of Banjul. What I know, it's Rahim Law. Ah. Thank you. Hey, star nga ne nag xam nga ataaya bi na bi taw kay la ñu ataaya non tuuti rek bu mu bëri tuuti rek bu mu naka kaay leen si ataaya bi Kansa waaw baax na waaw booy waaw bii neex na de booy naka la yaa yëgul. maa ngi yaa turoon na nga Paco. nga ne yaa na nga. man dégguloo soose de eh, ay man dégguloo olof de. itoodu. Adama. Adama. Adama Caaku Bantang ani Farafeñe mu toll jamfata Serekundaati. Caaku Bantang ni Farafeñe wala bii Farafeñe la ko. ah. Mhm. Mm. Mhm. Caaku Bantang gaa foro ah ok. yeah. nko ye dentin bridge lan. ɗenɗo mbiɗo non man jeeyi kata banjul awa jeela so jeye jeye jeye aɓe banjulle walla aɓe sére kona kono ah, a awa banjulle o ah, jumaɗen banjulle meyode banjulle meyo non banjulle meyo mowolon nak ah. non alright comme ça e chaque bantan anin fora feñe mun toɗo jam feta sére kunadi no wam chaque kilomol deno mm-hmm. ok dentin bridge aɓe sére la walla be banjul dentin bridge a sudwi in banjul it should be in Banjul. Yeah. Saying wo police wolbe lorin dami ningi bota kan sere kunai kata Banjul. Buwe fota nam dentin bridge. Wolbe sere kunale or wolbe Banjul. Well, actually no idea no. Mm. No no. Jumalam Banjul la mayot. Uh, Malik Lo, Rahim Malik Lo. Ah. Yeah. Thank you. You're welcome. Marama, Marama. Ah, Chaku Banta. Ak fara fenya fan mo gëna jëgëñ sere kunda. Ah, xawmako. Mom xawma ah. dara. Farafeñ. Caaku Bantang ak Farafeñ keneen jege Serekunda. Farafeñ. Ah. Farafeñ. kon Caaku Caaku waaw. Ah. Hmm. Denton Bridge Banjul la nekk wala Serekunda. Banjul. ah, ah ok. Denton Bridge Banjul la nekk wala Serekunda. Banjul di yow. Banjul. Banjul. waaw mais yow Banjul bi naka la tudd. non ko man man jaay Roy Malick Lo dégg nga ak Caaku Bantam fu gën a jege Serekunda. Farafeñe. nga ne Farafeñe. Ah. ak Caaku Bantam fu gën a jege Serekunda. Caaku Bantam fu gën a jege Caaku Bantam fii boori esew fii. boori esew mooy Caaku Bantam. waaw. <laughs> yaa ba. Caaku Bantam fu gën jege Serekunda. Serekunda. ngene you say what? I want to talk. You what kankuran Kankurang cannot talk. Yes, me I can talk. You can talk. Yes. What is your name, kankuran Omar. Eh, Kankurang bange was turam ni. bu tura Omar. Okay, kankuran Yes. So, where do you put on this kankuran Me. Hey. uh. I like money. You like money? Yes. Ah, are you going to school? Yes. Which school are you? Me. Mm. New Life. New Life? Yes. Kankurang. Ah, but can I see your face? mu ne ame kankurang I want to talk salaamaaleykum cere bi ñaata la ten upwards ten upwards waaw cere bi nu ko defaree ko defar yow wala sa mère suma yaay yow mënuloo defar cere mun naa waaye léegi wax ma rek nu ko dee defaree ah <laughs> léegi nu ma ko dee defaree yëpp laa laa ma waaw ah step to step waaw nañ dem waaw léegi yéen yéen ñuy seetaan seet leen da mun ngeen kii mun na defar cere nañ dem da ngaa mooñ moo ka dugub bi. ak mbooxa bi ba dafa dépend boo defar. waaw dugub la dugub la ak mbooxa. loo soo danga mix daal hmm. afta nga def fa ndox. Ah. nga mooñ ko waxuñ la nga araw ko de. mooñ ko ba am donja donja pour cere bi. si size boo bugga. den hmm. afta nga taal nga ñëkkaa suusal foo suusal ba mu ñor. Hmm. nga génne nga toj nga tame. afta nga suusalaati ko. fekk def nga fa laalo ba pere waaw. tere na yomb na defar. Ah. waaw yow na mun nga mooñ. man mun naa mooñ kay. Ah. waaw. ah ok léegi yow. Farafeñe. ak Caaku Bantang fa moo gën a jege Serekunda. maa ma fuy Caaku Bantang loo wax xaw ko. xamuloo Farafeñe xaw ma xam naa ba xaw ma feneen fi. xamuloo Caaku Bantang déedéet. waa Denton Brij Banjul la nekk wala Serekunda. Banjul. Mm. Banjul seen meeyoo bi naka la tudd. Rahiba Liglo foo ma bi laa xam xaw ma bu ma meeyoo bi naka la tudd. Monica Baye Malick Lo di. current mayor bi kan la. boobu moom xama ko. xamuloo kuy current mayor of Banjul. déedéet. booy yaa tudd naka. man maa tudd Ousmane. Ousmane naka. Thiam Ousmane. Thiam Thiam school. waaw ban school nga nekk. grade. five. grade five. two plus one. two plus one three. two times two minus two ñaata la. two times two minus two two. si naka. si naka eh. parce que jël tout nga teem ko si tout nga menos tout tout mo war a des. Radi Radi Mous. Radi Mous. chaku Bantang ak Farafenni fan moo gën a jege Serekunda. Saku Bantang. waaw moo Farafenni. wa Farafenni tout fa. ah. so chaku Bantang mo mo gëna a No, non moo gën sori bro. chaku Bantang mo gëna a sori. waaw li. man chaku banta Bantang ak Farafenni fu gëna a ci rekuna bu jëna a wa chaku banta Bantang la di. ah wa Farafenni moo gën a sori. wa mo jëna sori ci man. Farafeññi fala la nekkaana. mu ngi boori mu ngi boori eh, Kawour. waaw ñoo ñoo dendoo. ok Ca Caaku Bantang. Caaku Bantang moom mu mu senta bi moom daal. ban ban senta. foofu noonu eh, ñu ngi ko dawee eh, ah, fii nekk ah, Johnson Six. Johnson Six waaw. Ah, ban si ban région la nekk ban si Gambia. biir Farafeññi foofu Johnson Six. waaw yee. man sax foofu laa dégg Farafeññi. foofu nga dégg. suma mère ak suma suma jabar ah léegi Dentine Bridge Banjul la nekk wala Serekunda. Dentine Bridge mu ngi Dentine Bridge. mu ngi Dentine Bridge. waaw Banjul wala Serekunda ban fan la bokk. Banjul. waaw ah. léegi police yu nekk boori Serekunda bi nii Serekunda lañ nekk wala Banjul lañ nekk. ah ñu ne ñu nekk Serekunda am na ñu nekk Banjul. non comme si lan bi lan size. Ah, lan bi waa waaw gaa ngi gaa ngi yaa ngi Banjul. Ah. Banjul la yeah. ok léegi kan moo nekk meyo Banjul. Rougui Malick. jërëjëf. tarap ban advice nga am si booy yoo xam ak nit yu nekk jaay couche bi ak yooyu noonu. ku ma si jël ne la jot ñu la for life. waaw yeah man naa leen dimbale man they know me. okay the youth I don't want it my country. I don't want it. si man ma laa boole ana gisuma la de. waaw man ma Radi Moose la. Mm, waaw thank you bro. waaw thank waaw moomun gars yi whole la mun. ban mooy am nga xam. al kanam kanan domo kanan domo kanan domo nagala sumbuti tase kanan fele bu mo xool thank you uncle si ah, ah. télé bi gaay ñoo ñoo fam my name is oh, oga madam not boss madam yes. nice to meet you ah, oga madam do you know farafenye yes i hear farafenye have you been there no who is the current mayor of banjul mm-hmm. They should, you, they should give you a Gambian passport now. Yes. You help a lot of women here. Yes. You are, you, you are teaching a lot of girls how to make hair. Yes. So you should be given a Gambian passport. So if you know who is the mayor of Banjul and who is the mayor of KMC, tomorrow the immigration department will give you one. Ah, I don't know. <laughs> you don't know? You know, you know why? Yes. I don't go out. Yes, okay. Uh, from house to my shop. Okay. But your shop is in Kololi, right? Kololi, yes. At, uh, uh, under KMC? Who is the current mayor of KMC then? You are paying tax, tax to them. I only pay tax. I don't know their name. That is, I only call them my brother, my brother. So, madam, you only pay tax and you don't yes, know your own nah. name. yeah, I don't know. Okay, okay. What is your advice on the on on the current uh, uh, uh, popular kush on, on on the youth? What's your advice on that? Ah, it's no good. Okay. Kush is no good. Good. I don't advise people to know kush. Kush is very bad okay. extension for those boys. Okay. And those guys. it's not good. Okay. Thank you so much, ma'am. Okay. All right. Nice Thank you. you. man maa tudd Master Roubé. Master Roubé. am na artist as well. yéen a ooy Master Roubé jox ñu acapella. di ko bow ci satuma ko bon ma ne waxatuma la gong nit ñi dañuy siis te ci bon képp ko foromu gong gong la benn duroo gong gambi gi la ñoo ko mën nañ nekk si biti ñoo gi nañ nekk gambi mun dem si kanam xeexan xeexante gee xuloo gee xeex gi si gannaaw ndax ñu mun a gambi dem si kanam nañ def lu ool lu ñuy ooyee self sufficiency nañ dellu tool yi gambi amul dara resources xam ne moom la ñuy juboo revenu bi wara amé niñ dem ko démé Gambie mo mun am li ñuy dynamic creation yóbbu ko si world market bi ñu mëna taxawal suñu bop dara ci bi dem ci kanam dëkkee dafa waw nga xëcc di ko boobu. waaw xoolal di message message la joxé ni de lii de c'est full message wara ma ngi ñëw ci yow bul wari arma paré waaj Roubé légui ya ah, yo soo nekkee président tey lan nga njëkk def. li ma njëkk def moy waaw dimbale waa Gambie gi waaw ñu dëkk gi dem di démé kanam. Mm. su ko defee. Gambia mun a taxawal boppam li ñuy woowee self sufficiency comme ni ma la ko woowee. ok léegi yow right now soo amoon chance pour nga meet people in power lan ngay wax gaay people in power su ma leen war a meet right now. pour nga advice gaay li ñu wax li ma leen a wax mooy. waaw nañ dimbale ghetto youth li ñu ooyee entities. Mhm. ñu li ñu ooyee factories. Mhm. ak li ñu ooyee industries. su ko defee Gambia gi nit ñi ñu mu leen a employ. ba pare maa leen bëgg wax benn wax tamit. gis nga outsiders yi ñuy gars yi wooye economical immigrants ñoom ñoo tax Gambia mu ta dem kanam bi ko dañoo ñëw di liggéey fii Nigeria ni ñag yi ni eh, Indians yi ak yeneen nit ñi damay rek waaw am gonna am gonna say every single word that I wish to say so léegi nit ñooy noonu la ñu war a jël ñu tege leen boor teg moo tax si seen kaw su ko defee xaalis gi mën a des bi ko ñoom dañoo jël xaalis gi duñu employé Gambien si sax jël xaalis gi di ko yóbbu seen i dëkka di fa sampe ay taax di ko samp lu nekk di ko ci ko ceeñ into ko yóbbu léegi dara si ñu nu fi des ñu dee jërëjëf léegi ban advice nga am si youth yi with this current couche couche couche day man sama sonn naa ko tuuti ma dee hmm. waaye li ma leen bëgg a wax mooy nañ bàyyi couche gi su ko defee mboolem luy xati luy mandil loo nit rek dafa gannaaw dañu seen xel dafa mut ñu xalaat su ko day nit li nga yére nga daanu day xel te fi ci génération bi di ñëw bu ñu am xel su ko ñu di waxtaan seen xalaat gi dem kanam thank you bro good luck Gambia yeah man uh. she was very low but today due to our, our, our, our ancestors Duty awareness is Gambia have been going growing gradually on its own so suñu bëggee mu jënd dem kanam ñun suñu maam yi suñ suñ suñ laagoon comme ñun tey ñu laagee nii ñu kon dëkk yi du agsi fii kon agsi fii wa nga diga ghetto youth yi wax leen ñu jóg de ghetto youth yi saa mu ne ngeen jóg nañ jóg so man maa fi nekkal ghetto youth yi nag mag bro yaa baax kaay ni kaay ni kaay ñu yes man maay Moussa Traoré Jimza Jinja ana rapa nga non man du ma rap. nga intellectual. intellectual yes. a intellectual intellectual right now. Mm. Mm. yow soo amee chance. pour nga toog ak people in power. Mm. ñu ne nga jox leen sa advice wala naka sa advice wala sa tot on national development lan ngay wa national development I'm just gonna um, I mean contribute on well, let, let's say on rehabilitation center for the youths. Reha re, rehabilitation center. Wow. the drug use in Gambia. it's okay. it's like escalating. In the very large. Okay. I'm How it is escalating? Because drug use in Gambia now from Nagani. Mm-hmm. Why do you think munge escalate? Because I'm from Nagani. Uh Drug bi ni mo duggee Gambia. Ak drug bi ni ñu ko establish Gambia because of this ECOWAS thing Nationalities yi day bari si drogue use baa ngay bëri fii nii. waaw suñu ñëw si. ñu ngi def loo xam ne ñu xamuñ ko. Uh-huh. yaa ngi sax drogue use bi in Gambia mm. mu ngi escalate into level boo xam ne nii mu ngi yaaxal suñu next generation. Mm. te that generation. Mm. I am talking about. Okay. That is gonna be, be now, very now, what I can we do know. to stop that that that that to, drug abuse? Is is is, is create some from the from the um, um, the forces, yes. from the government, okay. to stop it from coming in. pour muy dugg involve uh-huh. to create rehabilitation centers. Okay. for them okay. like hospitals. and other activities for the youths that have already been involved in this system. so this is what I can tell. thank you based on the facts. thank you so much bro. Saan suma xarit bi salaamaaleykum. maa la mënut a romba. dëgg la. mënuma laa romba. lii dafa leer xoolal baati ngewel gi may ñu si tuuti ñu dégg. waaw lu waay mënul neexul rek loo ragal da lay gaañ. ah korka dafa teew te su korka teewee rek dama war a defanteeg yow. aywaay waa korka ko kan kan kan kan ngay bëgganteel ma wéyal. bari nen. foofu bu fa dem. ki nga gënoon na waxal keneen ah déedéet mu déedéet bu bu ma yaa xal di ah déedéet déedéet de man xam naa ne daal bari neen bu ma ci dugal eh, ay eh, kii nag kii nag saa yu ñu tasee nag daf buga bu ma ci dugal bari neen léegi dinaa xam ni ma koy wooyee bari neen de yaa ma dugal de waaw ayo laare laare laare laare korka bëgg na jéegi bëri jéegi bëri yooyu noonu léegi maa waxoon maa waxoon woy bul woyati bu ma woyati eh waay eh léegi ban laa la eh youtube dinañ ma rey nag léegi boo bëgg ma may la eh waay rey nga ma non wax ma la cappay dañ bëri de ah. wax ma la cappay buganteel bëri na waxumala ca pay yi de. man dama wax ne ñu ma bugganteel bari neen te ñu ma bugg a bari neen ñu ma ñoo xam ne bugg naa leen bari neen. waaw yow léegi ku ci sa xol. ma ne déedéet kenn ko ko amut kenn du ma wax ne kii mooy suma xol benn nit amut. xol bi joxuloo ko man góor la ah. am naa raay bi taxaw foo. foo waaw. ah kon kon kon yaa ko teree ne. ah kon jeex na nag léegi nag loo maa yaaxalee nag saa yu ñu tasee nangam nga brosse. léegi gaañ yi maa waxoon xam nga bu nit mun ngaa wax ba pare waxeet. ah wayal leen. léegi foo ma génn. foo génn rek génnal waaw waaw bul jaar foofu ah boo ma bëggee yóbbu si ñoom faafa tamit dinaa daanu ah yóbbu ma si ñoom faafa waay. waajal lu bees gis naa ko. waaye munu ma ko de te fa xanaa ma jéem rek. jéemal nga ñu dem. ci ci yu yaaga yi. ñu dem. you are my life. my story love joy of my life. Whenever I feel sad, baby, your love makes me strong. saa yu ma naka saa yu ma nee da lay laaj xaw ma naka soom te laaj daal nañ dem. ayo tamit naka xaw ma naka. Ah. waa léegi. Caaku Bantang. ak Farafeñe fan moo gën a jegeñ Serekunda. te ñu dégg nag. Eh, xam nga laajoon nga ma fi li nga xamante ne dëkk bi yëpp ak ma koo joobee. waaw léegi bii moom kenn du la ci joobee wax ma rek yow di nga xam loolu de. nga ne Caaku Banta. waaw ak Farafeñe fu gën a jegeñ Serekunda. Fara Serekunda. saak Caaku Bante. Caaku Bantang ak Farafeñe fan moo gën a jegeñ Serekunda. Caaku Bante. Ah. waaw. dama ko xamam. fuy Farafeñe. Farafeñe moom xam naa fa. waaw xamoo Caaku banta de xaw ma Caaku Bantang. Ah. déedéet. ok Denton Bridge Banjul la nekk wala Serekunda. Banjul la nekk. police yu nekk noonu su nekkee yaa ngi dem Banjul. police yu nekk before bridge bi ñooñu Banjul lañ nekk wala Serekunda lañ nekk. balaa bridge bi. Banjul lañ nekk. lu tax ah ñu ngi ci digg ñu ci diggante Banjul ak Saaro. wala waaw Saaro moom mu ngi Banjul. waaw waaw police yi ñoom nekk before di bridge la di. ah wóoruma kuy mayo Banjul. mayo Banjul ndax xaw ma ko. Ah. kuy mayo KMC. xaw ma ko. jërëjëf ban region nga dégg. man maa ngi bi. Burusu bi si ban region la nekk. Phase one. ban region la nekk. xama ban la nekka di bourse bi mu ngi Birkama on the West Coast région la nekk ah Birkama la nekk waaw léegi kan mooy chairman area council Birkama bi wallahi xaw ma boobu tamit xanaa doy fay tax dama dee fay tax kañ waaw yaa ngi fay tax xamuloo xamuloo ñooñu foo ñëw foo de fii dañ fi dee ñëw dañ dee ñëw si restaurant bi soo mënu maa xam ku ci nekk ak fi nga fi nga fi moom fii keroog am nañu fi ñoo ñu ne ñoo moom ah, area bi soo érié bi la tamit ñu fa nekk tamit ñu ne ñoo moom érié boobu. soo nekk la teewloo gars yi fan la gars yi dëkk naka la seen région bi naka la. la teew ma ko de. jërëjëf. kon ka léegi sa jànxa yi duñ si wax ñu jëm si kàttu muuma gi. waa ji nag waa ji waa ji bàyyil. Ah, eh. waaw doy na. Ah, ah, dee na. kii amee na ma de. waa demal. hey man man ma àjjee. 干嘛？ Farafenye and Bantang, which one is far from Serekunda? Farafenye and Bantang. Yes. Which one is far from Serekunda? Yes. It's Serekunda. It's Farafenye. Lord, bala ka nga diga? Dega na yip. Dega na Apol. Dega na Olo. Farafenye ak Bantang, Fan mo gëna jégué Serekunda? Farafenye ak Bantang mo gëna Legi ban la nga bëgg ma la hakkunde eh. imagol fara farafeñe ara ara sérékunda e immagol bantang ara kunda ko honto buri yaude honto eh. ɓuuri yawde immagol sérékunda cakuban ko cakubantan buri because of cakubantan ɓuuri ɓattade e di base mi nanima base farafeñe oh, farafeñe honto mm. cakubantan woni cakubantan ko bolong woniri bolon honto farafeñe woni fenye ko bolon kadi woniri heɓde honto meeɗa ton yaade de

idamu sarankulun ha sarankulun boro ko jille hore kawma <laughs> mo foringo boro ko jille so mm. sahin chaku bantang anin farafenye mun to le jamfata sere kundati saku bantang anin farafenye <laughs> ifonga yo reply demo lo, ndema wolo <laughs> mawolo ifonga ya reply fo man farafenye lo man farafenye lo iman chaku bantang de basé lo basé ha basé anin santa su mun to le jamfata sere kundati baso ni santa ha <laughs> sa dospe basele kono ne ñinin kaale ko <laughs> ah <laughs> ta ta ta ta ta dura ay sami sami laa tudd sami ok sami caaku bantang ak fara feñe fan moo gën a jege Serekunda eh, man musuma xam boor yooyu noonu de yow foo xam man combo nii rek laa xam fan si combo nga xam fan si combo nga xam baxaw baxaw ka alkaali baxaw bi non xaw ma ko de <laughs> waa ji yow foo am kon. Chief nagam. maa ngi fi nagam ok Caaku Bantang ak Farafeñe fan moo gën a jegeñ Serekunda. Caaku euh, Bantang. Caaku Bantang moo gën a jegeñ. waaw. ok ah, Denton Bridge. Banjul la nekk wala Serekunda. Denton Bridge. waaw non Denton Bridge diggante Banjul ak Serekunda la. fan la nekk si ban laan. non foofu kay Banjul la area boobu Banjul la. Ah, waaw ok farafanya ak chako bantang fo moo gën a jege Serekunda yëpp benn la ah. farafeñe chako bantang yëpp benn la sanga farafeñe moy chako bantang ku ñemee ku ñemee na ñëw soo ma ñemee kay ku ma ñemee na ñëw ana ngeen tawte amu leen moto anyway sehu tay nak fi la ñoo close your street talk bi ah, today anyway I really have fun today uh, I was not expecting I will have this fun so mooy loolu but mooy loolu rek street talk tey nag suma doom bi moo suma doom bi moo nekk cameraman bi tey Sehu Manga the only Jola in town the only professional Jola the only professional Jola cameraman bu ma musa xam mooy Sehu Mbadou yeah so this is Korkas street talk today we were asking Chaku Bantang and uh, Farafenni which one is far from Serekunda Chalkubantang and Farafenni is the same so mooy loolu hey what's up you okay so and Farafenni is the same Chalkubantang ak Farafenni benn place la ne wa Farafenni Chalkubantang mooy loolu so ñu ngi la tamit Denton Bridge fan la Banjul la nekka wala Serekunda la nekka even me I don't know I don't know de please if you know that you know where Denton Bridge is is between Banjul and Serekunda so is so police yu dee nekk si Johnson bi noonu police yu fa dee nekk onda Serekunda lañ nekk wala onda Banjul lañ nekk I don't know but I know of one thing su nekkee président baa ngee dem toog waa KMC yi foofu leen dee receiver président bi Denton Bridge suñ crossé ba pare waa Banjul tamit balaa ñuy cross leen dee leen dee leen dee président bi su nekkee président baa ngee delu léegi Denton Bridge police yooyu noonu fu ñu nekk Serekunda la wala wala Banjul la KM wala Banjul la I'm asking. If you know that whether those police, that police station at Denton Bridge is under Serekunda or under Banjul, please let me know. Whether it's KM or Banjul, please let me know. So when I question with the who the mayor of Banjul, uh, uh, uh, is the mayor of Banjul and she's still is the mayor of KMC. And on for, so please, mais Bensouda dugg na TikTok eh, Bensouda dugg na TikTok tey dama gis mu ngi bombs waa naka mu ngi lifin box léegi mais yow yow sa box ko naka di trainal noonu why are you so why xamee ah, yow soo da nga bëgg a woon nit yi ne yow da nga mun box you are young <laughs> ah, ah Mr Bensouda bul invite naa la si ring bi mën naa yow box waaw so Mayor Bensouda dugg na TikTok mu ñu ko wax de mu ne now I am on TikTok Hey, thank you, Mr. Mayor, Lord Mayor of KFC. He's on TikTok now. <laughs> and he's training box. Huh? Anyway, I will organize boxing championship. So the final is between me and Lord Mayor of KMC, Talib Bensouda, si ring bi. bilaay si nga xam ne ne pol bi moo mun box. pol si téye naar bi def koo dóor ba di ko duma. mooy loolu but anyway, shout out to you. Ah, suma cameraman bi tey moo nekkoon Seewu Manga. is my son also sehu maa nga jógee fële naka kam fen daa xaw ma da nga faa àgg rek ñu naa ma ne ana sehu so mooy loolu kon kas talk li laa lay amaloon see you next time see you next week bye bye suma gaay dañu ñu wave gaay ah mooy loolu rek see you next week à Korka Street Talk